billah bismillah barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullah waa As-Samadiyya ñu ngi nuyu di leen ziyaara di baalu ñu paax tey baal ñu di ñaan sunu borom mu def ñu jullit xaqan def ñu ay murit saadiq xiir ñu ci jub te sax ñu ci ba faawu jàppandalal ñu ngërëmal Sëriñ Tuuba def ñu ñu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuuba yu Sëriñ Tuuba nagul sunu taalibe te gërëm ko boole ñu ci tànneefam di ñaan sunu borom. mu yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha lool te wéral ko te kàttanam ba naa la lëggéeyal Serigne Touba mu def ci lu kawe njortam te nu ànd ko ak moom di ñaanal itam Serigne Abdou Samad ak mboolem njaboot bi suñ borom dolli ko tawféex ak ndimbal ak sutura te dolli ko womatal mboolem jumtukaay yi lëggéeyal Serigne Touba ba lim ci lëggéeyal Serigne bi lépp mu def ci lu kawe njortam te nu ànd ak moom di ñaanal bokki taalibe yépp suñ borom defal nu tawféex ak gindiku defal nu ndimbal ak sutura eh, jàpp ndalal nu teggiin ak warma yi nu mën a ànd sëriñ bi te suñ borom tawféexale nu ngërëmam barke borom Touba ñu ñaanal ñi jiitu it suñ borom jéggal leen te xaare leen ajana ci barkeb sëriñ bi ñu ngi mboolem waa Asamaadiya yëpp di jégalu ci guddee dugg gi xëy na tey nekkoon ci ay xat-xat ba tax Eh, mën woon topp sax jataay bi lépp waaye ñi ngi sant bu baax ci mboolem njariñ yi fi rod yëpp eh, di sant sunu mm, maanaam waajur yi fi nekk ak sunu mag yi ak sunu rakk yëpp rek dañuy bañ a lim te duñu matal waaye daa mel ne sëñ Mouhamed Dieng moom wuutu na lu fi lool macha allah ak bàyyi suñ Cheikh Lo ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar mbokk yëpp eh, bàyyiwuñu kenn rek. di santal sëñ Abdou Samad bu baax a baax ndeysaan te di ko ñaanal sunu borom eh, defal ko ak nangu ci xeeñtu gi muy xeeñtu mbégteem sëñ Tuubaa ci ku ne ak ci fu ak ci lu ne eh, moom moo koy tax di jóg di génn ba bay dem ca mm, Makka ak diina yooyu yëpp xeeñtu mbégum sëriñ bi rek la ci la ci jublu waaye mu nekk fa it yónneenu njariñ lii bokkati ci may Sëriñ maanaam mbokk yi jàngat ko xam naa ne jàngat yu am solo nag li li nga xam ne moom la suñu Abdou Samad indi xam ne li tegtale rek mooy yaatu yaatu barkeb Sëriñ Tuubaa ba waa Makka ak Madina fa Rasulullah fa mu tëdd fam fam fam feeñe ak fam fam fam tëdd bañ demee ba jaaxle ci seen ci seen ci seen kaaraange ci seen bopp xalaatuñ dara lu leen mën a jotali ci xettalu yàlla lu dul barkeb sëriñ bi waaw bi boobu yi nga xam ne mi ko amee ci liggéeyal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko amee it ci coobaree boroomam barkeb sëñ bi kon manees naa wax ne mooy mooy mooy mooy moo moom la sëñ Abdou doon leeral rek yaatu barkeb sëriñ bi. bokk na ci liñ mën a déggee ci bataaxal bii nga xam ne waa Madina bind nañ ko sëriñ bi mooy xam ne jamono saa bu lëjee la gën a gaaw ci lijjanti ko mooy dellu ci yàlla mooy li gën a gaaw ci lijjanti ko dellu ci yàlla googu nag. du caagi ne ku ne rek day jóg rek daal di dellu ci yàlla waaye dañ koy jaare ci ki ci ki gën a jege yàlla ah, ci ki gën a jege yàlla mu ñaanal leen ndimbal ci yàlla kon teg tegtal la bataaxal bi tegtal la ci ne sëñ bi moo gën a jege boroomam ku dul moom waaw ah, jaare ko ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo gën a jege it rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku moom donte nit ki mën naa dëkk ak moom ca suuf soosa waaye teewul lay bégal rasulullahi sallallahu alayhi wa ci sëñ bi lay jóge bu bu sëriñ bi rek lay lay déglu ndax moo ko gën a jege maanaam ruuxuk sëriñ bi moo gën a jege moo gën a jege ruux yëpp moo leen gën a jege rasulullahi sallallahu alayhi wa moo gën a jege it boroomam moo tax mooy wax ñu ñu dégg moo xam it nañuy waxee ñoom ak nam leen ñaane ndax ñi doon bind bataaxal bi sëriñ bi ña ca suuf sa suufus Makka ak Madina waaye tiwut sëñ bi nekk Sénégal nekk tuuba moo leen gën a jonjoog yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yu bassirukal baaxi bi xatti karamatan wa in kuntu an ardil madinati la nahi li tegtal la ci ne sëriñ bi eh, mbindam yi Eh, dañuy dañuy dañoo jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lool te lii firnde la ci kon bokk na ci lañ ci mën a jànge mooy xam ne àdduna saabu yëngoo boroom àdduna moo ko mën a dalal boroom àdduna nag du ku nekk rek moo mën a moo tëb àgg ci moom wax ak moom waaye daa am yoon wu ñuy wu ñuy wu waxee ak moom te ka ko gën a jege moo gën a mën a wax ak moom moo gën a mën a wax ak moom kon day mel ne ba ci suñu réew mi mboolem jafe-jafe yiñ ci am yëpp buñ maase woon dellu ci sëriñ bi dëgg-dëgg rek mbooleem luñ bëgg dañ ko am waaye dëkk giñ dëkk ak moom nag dëkk giñ dëkk ak moom buñ ko xamul buñ xamul teggiin yi war ci moom buñ xamul worma ji war ci moom buñ xamul màggal gi war ci moom dëkk boobu ñu dëkk ak moom du lu ne mën na noo dal yàlla nañ ci yàlla musal maanaam rawatina buñ demee ba di ko ñàkke war ma mbaa ñu koy ñàkke teggin ma des na koo jàngee ci bataaxal bi ndax ñii ñi ngi dëkk ak rasulullah sallallahu alayhi wa waaye dem nañ ba am tiitaange te tiitaange jooju kat kañ jàpp ne moo leen ko mën a teggil ci barke ki mën a teggi ko mooy ki leen gën a jege yonente bi sallallahu alayhi wa te kooku kat moo ne du nit ku weex kon ñoo ko gën a jege ci zahir ci wàllu ci wàllu ci wàllu deret niñ ko xamee waaye sëñ bee leen ko gën a jege ci baatin ci wàll yëpp waaye nun tamit li ñuy jege-jege sëriñ bi eh, ci zahir nii waaye li ñuy booleeg moom mooy pësteef pësteef boobu nag bu amul ku am pësteef ku am pësteef ak warma ak lum sori sori mën na noo gën a jege sëriñ bi ba nun ñu am jafe-jafe boo xam ne suñ ko suñ ci bëggee génn sax bëgg ko ñu ñaanal sëriñ bi danañ danañ sori lool lool nag lu mat a jàngat la lu mat a jàngat la leen yóbbee lii ba am ba seen diggante yonent bi sallallahu alayhi mel ne dañ cee soxla intervention waaw nun mbaa loolu dal ci suñu digganteeg sëriñ bi mbaa loolu du ñu dal ci suñu digganteeg sëriñ bi ndax ñàkke gi wor ma fi mu ne ëpp na ñàkke gi e, teggiin ëpp na ñàkk gee waggar ëpp na pëstéef yi wàññiku gi wàññiku gi itam ëpp na euh, loolu yi mënees na koo jànge ci bataaxal bii xam ne kat euh, waa Makka ak Madina gis nga bi ñuy wax ak sëñ bi ci bataaxal bi xeeti ma yiñ ko jox xeeti teggiinu yiñ def ci kanamam <coughs> waaye wan wan ko ne ko sa suñ borom moo wax ne na ngeen wut wasiila bu ngeen na ngeen wut wasiila bu ngeen bëggee bu ngeen bëggee mbir ci moom maanaam na ngeen wut na ngeen jaar na ngeen jaar ci na ngeen jaar ci ku ko jege koo xam ne moo leen ni jokkaleeg sunu borom kon ñoom bataaxal dañ ko def ngir jëme ko ci sëñ bi bëgg sëñ bi den seen wasiira ci seen diggante ak seen borom eh, tudde nañ ko mawlaana sunu kilifa kon nangu nañ ne moo leen yilif ci diine lislaam maanaam moo leen ci seen diggante ak seen borom loolu lépp nag nun ñu am ko ba noppi eh, daa mel ne eh, di bëgg a fàtte li ñu am maanaam ñii bi ñuy wax ak bi ni ñuy jëfandikoo day mel ne eh, murit yi sëñ bi doon yar dëgg-dëgg nii rek lañ doon wax ak sëriñ bi nii rek lañ doon jëflanteeg sëriñ bi waaye nag waa foofa muy waa Màkka ñàkkoon a xam lañu am ak ñàkk ko jox war ma lu leen dal looloo leen ko tegoon lu leen dal rek loolo leen ko tegoon nun nag loolu am na luñ ci war a jànge bu baax a baax a jànge ci xew-xew muy bataaxal bi ci li Sëñ Tuubaa waxoon ne nasa li wa laysa minni yanzahu wa innani bihi ximan wa mafsahu maanaam moom mooy wéeruwaay bi mooy buurukaay bi mooy làquwaay bi fa man araadal xayra fii kiltay daaray ni fal yelus bii maanaam ku bëgg a mucc àdduna ci moom ngay wéeru ci moom ngay làqu ku làqu ci moom daal di mucc gis nga ñii naka ñu làqu ci sëriñ bi rek daal di mucc ca mboolem lañ doon ragal jot ci mboolem lañ doon bëgg kon nun tamit buñ ñu bëggee mucc mucc ndax koo gis rek mucc ak jariñu la bëgg buñ bëggee jariñu sëñ Tuubaa nee na mooy njariñ li nafaani wa bi yan faamul waraa yàlla jariñ ne ma te ci man lay jariñ mbindee fi buñ buñ mucc wa inna nii bii ximan wa mafsan nee na mooy muccuwaay bi mooy làquwaay bi mooy aaruwaay bi te lii tegtal la ci ndax bañ bañ demee ba tiir rek bañ demee ba jaaxle dañoo yëg ne sëriñ bi rek moo leen ci mën a génne te ba sëriñ bi bindee xasidaam yooyee la la la lañ bëggoon lépp ca la daal di ca la daal di amee kon nag nun ñi am sëriñ bi xasida yi ñu di ko jàng xasida yi nekk fi kon loolu tegtal la ci ne bu pësseef amee bu ci pësseef amee pas-pas bi da ci am solo teggin yi war ma ji am maanaam dañuy sax ci mucc sax ci jariñu mbanees na cee dégg it ne sëñ Tuuba moo doon lu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan doon li gim doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yemul rek yemul rek ci doon ko ci zahir bàyyi batin waaye yemul rek ci donn ko ci baatin bi bàyyi zahir si waaye dafa koo donn zahiran wa baatinan lool feeñ na bu baax a baax sax ci biir euh, bataaxal bi ba ci ba ci sax euh, way yi ci biir dañ ci gis waxin wuy tegtale ne ñoom nangu nañ ne sëriñ bi mooy cheikhul xaqiqati wa tariqati wal huda haadi l wara lil xaqi wal imaani sëñ bi dafa dafa loolu li muy tekki rek ci maanaam li ma ci déggee rek mooy nangu nañ ne sëñ bi kon moo moo moo ci sari xaak xaqiqa waaw loolu ñu war cee jàngale sëñ Tuubaa moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni muy sàmme diineem bi di ko sàmme aara euh, di ko sàmme di ko di ko di ko aare diine ji noonu itam la sëñ Tuubaa di sàmme dëkkub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak raw doom ba ak maanaam mbooleem ay ay aw xeetam xeetam ko gëm te dëggal ak raw doom ba ni muy noonu la ko noonu la ko sëñ bi di sàmme maanaam ci moom ci sëñ Tuubaa la yàlla di sàmme lislaam ci sëñ Tuubaa la yàlla di sàmme xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sëñ Tuubaa la suñ borom di sàmme alquran waaye ci sëñ Tuubaa la sunu borom di sàmme rawdu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rawdatum boobee ci sëñ Tuubaa ko sunu borom di sàmme loolu mënees na koo jàngee ci xew-xew bi nga xam ne ñooña lañ koy jege-jege ak foofa ñoo lañuy bari bari xam-xam la bari bari ay nit yàlla lañuy bari bari mm, ngànnaay zahir waaye teewul yëg nañ ne njàqare lii kat ki ci mën a dimbale bañ am kaaraange mooy al abdul xadim kon loolu mooy tegtale ne loola sun borom moo ko def ci seen xel ngir wan leen ne sàmm sàmm sàmm dëkkub rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak xeetu yonte bi ci loxol sëriñ bi la tege waaw loolu wartee fam la daa mel ne suñ ci dégg ne rek suñ Tuubaa jaayante gi jaayante yonte bi sallallahu alayhi di ko liggéeyal daa bokk ci sàmmal ko xorumam ñi nga day mel ne sàmm gi moom la war moo tax bi amee ñooña seeni xel jàppul jàppul kenn ku dul sëriñ bi ne moo leen war a dellool saay-saay soosu nga xam ne bëgg nañoo dugg foofu te indi faak yàq leen tax a jokk waaye màggu xasida yi Sëñ Tuubaa yi itam mënees na ko cee jànke nga xam ne xasida yi kon ay jëmm lañ yu yuy ndax sëñ bi eh, daa mel ne ñoom la yebal ñuy ay soldaaram yi war a delloo ginnaaw saay-saay soosu nga xam ne dañoo bëggoon a songu Madina loolu nag euh, sëñ bi yàgg naa yàgg na yàgg na ndax bi mu nekkee ay nooni noonam nooni nooni sunu borom yi ca tukki géej ga it ci xasida yi la leen doon la doon xeexeek ñoom ba àggoon ci ne bu mu bàyyiwul li may bind ñoom ñëpp danañ faatu ci mbas law annani lam atrukil kitaaba mujahidan bi adawil itaba la bi bil wabayi kullu kaafiri in lam yatuubu lil ilahi al xaafiri waaye nag laakin afawtu an jamihi naas nga xam ne moo leen jéggal kon tegtal la ci ne xasida yi ah, da sëriñ bi da leen defloo da leen defloo di leen dindiloo waaye genn xasida ak sëriñ Tuubaa kon mën naa aar mën naa aar ab dëkk am réew ah, mën naa aar am dëkk mën naa aar am réew léegi kon eh, war nañ cee gën a jàngaate eh, màggu xasida yi kon du ay way kese waaye dafa am leer yu ci nekk yu màgg yoo xam ne dañuy def ak a dindi te lu ci sëñ bi jublu rek loole la ñuy def ak a dindi waaye fii da gis koo xam ne yittey àdduna ju ndaw a ndaw rek mën na cee jël limu xasida yu bari di ko ci baamtu te fekk gis nga sëñ bi lii li muy rey rëy genn xas ñaari xasida la ci def benn bi mu teglu ko ca barab yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bi ca Makka ci ni ko sëñ Abdou Samad waxee kon loolu li muy tegtale rek mooy màggu xasida yi màggu xasida yi mën mënees na cee jàngat lu bare bare bare bare ci loolu yi mënees na cee dégg ne it sëriñ bi eh, ñëpp a ko war a nangul te ñëpp a ko mën a nangul waaye nag ku ne ci anam ga koy nangule eh, bu ko ñii dee nangul ci pas-pas ñii mën nañ koo nangul ci wàllu xalaat ñii war nañ koo mën a nangul ci wàllu gune ci wàllu gune daal nit ñi li ma waxoon ñëpp mucc ak jariñu lañu bëgg te sëñ Tuubaa na woon bu nit ñi gis nga law xaliman naasu la waxoon waxut bu jullit ñi xamoon li ne ci man waxut bu murit yi xamoon li nekk ci man waaye dana law xaliman naasu maanaam bu nit ñi xamoon li ne ci moom maanaam nit nit ñi liñ bëgg mooy mucc ak jariñ mucc googu ak jariñ googu buñ xamoon ni mu nekkee ci sëriñ bi ñoom ñëpp koy dañ koy dañ koy dañ koy dëgmal si waaye réere gi moo tax ñuy ñuy wuti la neen kon sëñ bi eh, boo xoolee sax waa Makka ak Madina yi yi lii xewoon ci ñoom xaw naa jege birum politique eh, waaye doylootuñ seen xam-xam ci wàllu politique doylootuñ seen i ngànnaay doylootuñ seen seen dara dañoo jàpp ne solution bi mooy wax ko sëriñ bi wax ko sëriñ bi kon sëñ Tuubaa eh, bu àdduna lajee moo xam ci wàllu politik moo xam ci wàllu diine ndax gis nga ca euh, xew-xew yooye xewoon mm, ca gànnaar ci maaye googu ni ñiñ ko doon fiire ba am andi woon ak juyoo ci seen biir sëñ Tuubaa ko lijjanti woon kon euh, te foofa euh, nañ daan woowee sëñ mooy muttafaqun alayhi ki ñëpp dëppoo ci moom moo xam tijaan yi la moo xam xaadir moo xam ñu mën a doon kon sëñ bi mën naa doon solution mën naa doon solution ci mboolem jafe-jafe àdduna yi àdduna bi Euh, sëñ bi mën na ko mën na ko lijjanti rawatina nag euh, réew mi ñu nekk moom kon ñàkk dëkk moom rek doyut waaye sukkandiku ci moom sukkandiku ci moom moo xam ñi ko gëm ci wàllu pas waaye sukkandiku moom sukkandiku ci moom ci wàllu xalaat ak sukkandiku ci moom euh, ci wàllu moo xam ci wàllu bu mën a doon moo xam ci wàllu politique moo xam ci wàllu bu mën a doon suñ sukkandikoo delluwaat ci Sëñ Tuubaa maanaam lépp dana lijjantiku te jàmm lay àndal waaye gis naa ci ne sëñ bi xoolal ñii booba ni soree waaye ñoom xam nañ sëriñ bi ba xam ne seen njàqare lii moo leen ci mën a musal léegi ñooñu lan moo leen xamal sëriñ bi mooy sëñ Tuubaa fu mu àgg rek jëfi boppam ak njambaaru boppam moo ko moo ko moo ko moo nag kon ñun lan mooñ ci war ñun lan moo ci war gannaaw xam nañ ni ah ñun kat ñoo yor muccukaay bi ñoo yor làquwaay bi ñoo yor solution bi ñoo yor ñoo yor ñoo léegi ñun ban taxawaay lañ ci am ban taxawaay lañ ci am ci yaatal mbirum sëriñ bi ci anam gim gim gën gën a mate ci yaatal mbirum sëriñ bi ci anam gim gën a mate am dañuy bàyyi nii rek. ñeneen diñ ci gën a jariñu ñeneen diñ ci gën a jariñu maanaam warees na cee dégg loolu dina mën nañoo dem ba am ñu ñu ñu ñuy jariñu ci sëriñ bi ëpp ñun liñ ci jariñu waaw ah, bi daana wax ne waa waa ñu weex ñi day muy waa gànnaar wutukaayu alal lañ ma jàppe nit ñu ñuul ñi yàlla kese lañ ma jàppe yàlla lañu ma jàppe waaye aka neexoon ma gis ku ku yor ku soxla li ma yor ba ma jox kon day mel ni ba léegi ñun xamaguñ maanaam yittewooguñ dëgg dëgg li nu sëriñ Tuubaa di jox waaw li sëriñ bi di jox day mel ni ba léegi yittewooguñ ko dëgg dëgg léegi nag loola eh, am na taxawaay yu rëy yoo xam ne moo ci war a am ñun daal daa mel ne ni mag ñi doon sànc ay dëkk di gor ay dëkk loolu jamono boobu la dëppoon léegi ndax du ndax du jot na eh, kilifa yi wala murid rek laay wax sax murid yi képp koo xam ne nii fas ngaa liggéeyal Sëñ Tuubaa ndax jotul ñuy sañc léegi ay réew ñuy gor ay réew noo ko mën a waxee mooy loolu mooy toj ay réew yoo xam ne dañuy fexe ba yóbbu fa ni ab sëriñ daan demee ci àll toj ko def fa ay néegi ñax dëkk fa defar fa ab teen def fa jàkka dugg ca dëkk booba fexe ba ak murit jolli foofa ñu di ko dund ba gindi ko ci sëriñ bi ndax léegi jotul maanaam sa ab sëriñ sëriñ si bàyyikoo fii ci réew réew mi dem ci yeneen réew sañci fa ngir yaatal fa mbirum sëñ bi waxuma nag dem ci yeneen réew ngir euh, seeti taalibe ya fa nekk ak euh, euh, dolli leen rek ñoom seen pastéef wala ngir ngir liggéey yi wala ngir am alal kese kese waaye ndax jotul nag ñuy génn nag génn dem sanc ay réew ngir jottali wooteb sëriñ bi waaw ah, waaye loolu nag ki koy def daa fekk war a fekk mu xam ko ba noppi dund ko nga sëñ Tuubaa ab wooteem du ay waxi kese waaye ay jikko la yuy nekk ci nit ki yoo xam ne eh, mooy xëcc mooy xëcc xol yi ci bëgg sëriñ bi ak bëgg mel ni ki ñu gis sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi jeexital ci moom kon yooyu yëpp it mënees na koo jàngee ci mënees na koo jàngi ci lii bokk na ci li ma ciy jàng moom lay tëje ndax li ma ci li ma ci seetlu bari na lool sëñ bi moom nee na woon lam yabqa fil xalqi siwa man yadlubu barakat yi waxat asaani maddama maanaam desul ci mbindeef yi ku dul koo xam ne sama barke lay sàkk mooy nit ñëpp maanaam dana dem ba ñëpp maanaam barkeb sëriñ bi rek lañuy ñuy sàkk mooy ki ko xam ak ki ko xamul la li ñuy sàkk lépp daal mi ngi ci mi ngi ci loxoom waaw Ah, li ñu sàkk lépp mi ngi ci loxoom maanaam benn ñu xam ko wala ñu bañ koo xam law alima naasu maa lu lu lu lu mat a bàyyi xel la bu nit ñi xamoon li nekk ci man dañuy daw njëkkante si ko waaye nag dañ koo réere kon nag ñun ñi ko xam am nañu responsabilité jottali ko jottali ko ah, am na nañu responsabilité jottali ko nit ki nag buy jottali mbir du caagi ne ni mu ko xamee rek la koy jottalee waaye ñi mu koy jottali da leen war xam ñoom it ñooy ñan ak nan la ñuy déggee mbir ak nan lañ koy dundee loolu lépp da ci am solo yàlla na suñu borom ci sunu njariñ lii kenn bañ ñu cee appelé ñu Sëñ yàlla na yàlla nay sunu wéeruwaay yàlla na sunu làquwaay yàlla nay sunu buuruwaay te yàlla na ko nangul barke Cheikh Xadim ñi ngi sant bu baax di sant Sëñ Abdou Samad sunu borom dolli ko tawféex dolli ko xéewal di ko mucc.